asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina sëriñu daara yi ak ndongay daara yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S ginnaaw bi mu amalee concours journal yaatal mbindum alxuraan jagleel leen ko région yii di Sédhiou Kédougou Kolda Tamba Ziguinchor ak maatam mooy amaat mbégte di leen yëgal bis bu mag di cérémonie de remise de prix bu mu jagleel ñett ñi jiitu ci boobale jongante muy dëppook samedi 29 janvier 2022 ca centre culturel bu maatam bis boobu nag c mi ngi koy tuddee Thierno Mouhamadou Samassa di kilifa diine bu mag ca maatam C3S mi ngi koy yëgal mboolem kuy autorité nekk ca boobale région bàyyiwul kenn ku ci bëgg yeneen ni leeral mën ngaa jokkoo ak Ahmed Tidiane Sall ca maatam ci numéro bi di 77 424 23 21 wala nga jokkoo ak Ousmane Dia ca Ranérou ci numéro bii di 77 784 15 44 wasalaamaaleykum wa rahmatullah ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun